Bonsoir à toutes et à tous les citoyens du net quel plaisir de vous retrouver sur ces différentes plateformes digitales alors ce soir ñi ngi fi nga xam ne moom di Liberté 4 ci inauguration wu euh, une grande actrice nga xam ni kenn doon ko présenté ci paysage médiatique bi une grande aussi animatrice muy Adja Astou tey nag ay collègue am ñëw fii ci inauguration bi ku ne xam na ni Papa Ndiaye bi ngeen ko ci image euh, doonatul ku ñuy présenté moom la ñu fekk tey fii euh, ça fait beaucoup de ñu gëj ko gis mu génn ci média yi moom Papa Ndiaye moo tax ma képp ko fii tey pour ñu war a wax ay wax ay bal <laughs> nii naa mais sama rakk la waaye sama gaañ la maa ngi lay fay di nuyu sa gars yi nga àndal yëpp. ñoom dama leen di seetaan ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp samay gaañ la ñun ñoo far. ndax man maa ngi ci aar bi waaye maa ngi ci média comme yéen. rawati nag yow mi nga xam ne yow nee naa la maa la bëggal sama bopp. ndax mënantu woo da ngaa mën. waaw loolu dafa am. gars yi nee nañ boo mënee rek mën nga mais boo mënul mënoo te yow da ngaa mën. d'accord Ayasu lan mooy sa relation ak moom mis à part liggéey bi ngeen bokk yéen ñaar 7TV. waaw moom moom dañ ko fekk 7TV. man ak Mara Thiam sama rak sama xarit sama patron xam nga man Mara mooy sama patron mooy sama DG moom a dalal ma fekk leen fa ñu yaatal ma bëgg ma rawatina nag sama patron bu mag a mag bi muy may mun a ndur fay moom moom laay gërëm di ko sant ndax tey bu sama kër yeggee sax moom loxoo ma ngi ndax ba ma ñëwee sa TV ba léegi wecc itam waxuma la sama salaire mais leneen lu dul sama salaire da koy bokk ak man ajaa noonu ñu def ma nag seen gëwél tey affaire yi ngay gis yëpp animation yeeg yaat ma caam ak ñëpp daf na ma dem fi laa woon di ranger ay yére parce que dama ne nit kenn du ko lekk dañuy taxaw wante te nit ñi dañuy fàtte loolu koo gis muy dox rek soxla na ku ko taxawu parce que benn nit mënul lépp lépp te mbooloo mooy dooleel ajaa nag nekk jigéen ju mën góor bi mooy deuxième show showroom bi beneen bi mi ngi liberté 6 euh, kon donc bu ubbee lii doon jigéen doon jàmbaar di rey boppam gëmul lu dul liggéey waxuma bëgg gim ñu bëgg wala yëg gim ñu yëg wala teral gim ñuy teral danoo war a ñëw jàpp ko teg ko loxo puus ko jàppale ko ba pare sénégalais yi laay woo ak sénégalaises yëpp nen ñëw fii ndax lépp lu ñu bëggoon di dagg billet fay hôtel yàq sa xaay say bagage di réer boo dugg see fii sa xol seen non ma ne xam nga man jot naa tukki bu dee ñetti fan sax dem naa ñetti dëkk kon donc tey bu ma ne ne boo duggee fii seen xol dina sedd rek seen xol dina sedd ndax li ma fi gis te man nit ñi xam nañ ma ci fashion damaa mën a sañse lool Baye Ndiaye xam na li may wax maa ko jàngal sañse sa patron sama booy la maa ko jàngal sañse dafa takk ñaareel dégg na yow looy xaar yow man amaguma benn waaye ñaar waaw dama koy ruube yàgg sama xarit di nuyu Aziz moo ah, mon frère moom it doomu yaayu Iliman Lam ndaanaan yooyu nga xamante ne bu ñu amoon ñu mel ni moom fii Sénégal kenn waxatu ko ndax ñi ngi jàppale di dimbali te yàlla rek tax alors Papa Ndiaye ça fait un bout de temps ñu gëj la gis ci ci showbiz bi qu'est-ce qu'il lan moo xew danga nga da nga jël sa retraite ci fecc yi wala danga da nga jël pause di dund di lekk sa xaalis lan moo xew dañu la gëj a gis ci musique bi. waaw xaalis moom. Eh! boo ko baaxilee wax waxul baaxi. j'ai beaucoup d'argent à ce moment. c'est pour c'est pour ça que je vous laisse de mbel mbel mbel ah. avec Viviane au Grand Théâtre. Mm. Moi, je mange mon argent. Je suis, à, je suis à côté, a ah. à la maison, je fais des barbecues. Bon, je mange mon... Je rigole pas, hein. Je mange parce que ça fait longtemps que j'ai travaillé. mais est-ce que du booy yi ñoo la fi jëlee nag Pape. yàgg na booy yi ma mën fuuf ñoom njàpp yooyu. xam nga ñamaxit. dama ne waxuma la ñamaxit waxuma la njàpp waxuma la jiili waxuma la ma xuja la booy yi boo yee ma mën fuuf mais damaa bëgg boo duggee ci YouTube bi nga teg Papa Ndiaye xale yi def naa de. waaw li nga <laughs> maanaam li nga bëgg a wax ni mooy xale yi defaguñ li Papa def ci danse. waaw waaye li may sante li may sante yàlla mooy ku ci ne bërët sa koñ mës ngaa bëgg a dégg ñu naan la Papa Ndiaye numéro 2. ñëpp nag laa la wax ñëpp lool rek ndam la ndax cofeel bi am bi ñu am ci man boobu laa am ci ñoom ndax amul man man na may bëgg laata noonu laay bëggee ku may bëggal. li nga wax dëgg la boo yéem ma fi jëlee. d'accord mais par parlons plus sérieux euh, lan wax xew sa digganteeg Pape Diouf parce que ñu bëri ne nañ da ngeen am difficulté da ngeen am euh, ñàkk a déggoo parce que dañ doon xaar euh, nga taxaw ci spectacle yi Pape Diouf yi. mine de rien gis nañ Pape Diouf mi ngi préparé spectacle yu mag dégguñ ci Pape Ndiaye mu wax ci fii ci réew mi aussi noonu sa diggante ak Pape Diouf dafa am problème da ngeen a xuloo waaw wala déet. non nit du nit du nit ak fils am comme sama fils la. Pape Pape Mbaye Malagu ma ne parce que lii lu sérieux la sénégalais neen da ngeen am problème man jël naa ma xujja laaj ko ci sax ne ma sii sii dañoo problème bi may ñëw léegi moom laa ñoko ko problème bu tàng laa ñoko ni ko a ñëw mais dañuy waxtaan loo jot ak Pape Diouf problème bu tàng laa añee rek ñëw wala waxoo ci problème bu am kaane nag bu neex laa añee gars yi a ngi añee problème Pape Diouf c'est mon frère c'est mon ami ay mbokk lañ bàyyi leen jaxase yow daawoo jaxase ñëpp la bëggoon ni nga ma léegi da ngaa jaxase ba léegi yaa ngi ñuul jaxase baaxul xanaa amoo ci saabu maam Ndiaye savon bi. mais sérieusement am amoon nañu. Eh, boutique bi lañ ah. wax. kooku sama sama ah. booy la. Ah. kooku sama booy la mais nekkatoo fa tamit. nekkatuma fan. nekkatoo ci Pape Diouf. boobu sama groupe la. mais nag yaa ngi rafetal de. luy rafetal. non yaa ngi rafetal. groupe boobu sama groupe. groupe sama groupe la. bi may jàppale Pape Diouf fu ngeen nekkoon. boo def sa yii rek mooy problème am na ngay rafetal. non non non non man bi may jàppale Pape Diouf ci génération consciente vous étiez où Pape première Amérique am bokk benn néeg Fallou Dieng moo ñu yóbbuwoon bi ñu jógee ambassade Amérique man maa fay taxi bi ñu yóbbu kooku sama frère. lan la war a def ba ngeen war a bàyyante. sama booy la. lu la def rien. sama booy yow luy problème bi wala nga faat ouverture yére yi xoolal Adja yi man. non parce que Papa Ndiaye Papa Ndiaye fecckat bu mag. daa am loo koy def lu rek mu bàyyi la. lan la la Pape Diouf def. xoolal lu la Pape Diouf def laa neex na la. dama lay war nag li Adja andi xanaa bii war na war na jàpp bébé baas séeré Papa Diouf Sénégal jubóowuñu de jàpp leen ñi ñoom ñaar jubóowuñu rek waaye yéen mënu leen bàyyi jaxase parce que waxoo fi lu leer man mënoo bàyyi jaxase mais wax fi lu leer xoolal te Adja du fii rek la ko def de ah, kañ dem ci kaw kañ leen ñu dem ci kaw kan laa xulool da ngaa xulool Pape Diouf waaw mais kii seetaanul man Sénégal yéen gisee leen mës ngaa dégg Papa Ndiaye woo xuloog diw mais boobu léegi tuddoo turam yow sama mag sama xarit dégg ma ko rubé naan la moo fiis kooku sama mag la nag mu nu xuloo lu nu man maa am nu ma mel man Papa Ndiaye mooy yàlla moo ma sàkk def ma Sénégalais yëpp bëgg ma waykat yëpp bëgg ma ma bëgg Waly bëgg Sidi bëgg Pape bëgg Titi bëgg Viviane man noonu laa mel. am nu ñu lay téye tamit. voilà ba pare ni ma ni ma ni ma duggee ci showbiz la man Fallou Dieng moo ñëw tax Omar ma feccal Omar Pène feccal Baba Maal feccal Waly sek feccal Pape Diouf feccal Alim bërki démb. fettkat yi ngay wax ni xaw naa ne alimentaire bu mujj. waaw yaa ko fekk. maa aay nag. kon Pape euh, euh, fecckat bu mag la daal am ñu koy téye moo tax bu nekkee ci groupe bu sentirul ne am na nuñ ko téye dafay dafay. gis man rek leader laa man. Youssou Ndour ma wax loolu. moo na ma yow yow yow cundum dix fecckat ñoo lay remplacer. te loolu du man kun fayekul la yàlla wallaahi du man li ma def Bercy ba léegi dix personnes ay taxaw mënuñu ko def ci man benn benn nit sama vestiaire bi ñuy waxtaanee garaam mbubb bi. moom la Mara Thiam sa xarit di waxtaane chaque jour benn nit di tas biir yàlla bokkul ak leneen loolu la ma yàlla defal man damay nangul ñëpp na ma ñëpp nangul xale yi ñoo ma fi jëlee nag léegi damay bàyyi sama rak yi def. kon Pape dalaa ah, kan pa kan yow yaa ci Pape Diouf ba tey. parce que gis ne da nga ne yow kilifa nga boo nekkee ci bërëb téyewuñ la ni la war a téye da ngay def toog toog sa toogaay. Sénégal gisoo fi ku Pape Diouf bañal ndax moom ba dèjà boo ko xam ne ñu naan dafa yaru mais na bëgg nga fëkk ci ci ci bagage jàmbur yi waaw di nga ànd ak moom dem pari bon ça dépend bu bu ah, kase bi baaxee man million yi day bari rek. jubóowoo leen te lii laa déggoon damaa déggoon ni. da ngaa ñëw ni yokk ñu yokkal la sa kase. man bu millions yi baree rek ma dem. ah waaw fan nga nekk léegi. maa ngi alburaax. maa ngi alburaax léegi. comme que yéen ñëw ngeen dama laaj. maa ngi alburaax moom laay feccal léegi alburaax laay feccal léegi nag na fii. ñëw leen bu ngeen wut passeport ngeen ñëwaale ci boutique bi a jaay leen ngeen jënd. kese moo tax déggoo Pape Diouf. waaw parce que. waaw kese la loolu laa dégg ma loolu lañ ma wax sax man dafa xaw a sedd. non man loolu lañ ma wax. waaw pari dafa xaw a sedd kese bi faaw mu duun parce que jeget yi mënul ñàkk. Ah. waaw ñun ma Baye Ndiaye ak deuxième femme bi nu mu tudd. <laughs> mais première femme mi ngi fa ba tey. waaw <laughs>